asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar 100 pour cent lamb ngeen fiy seetaan du mën a ñàkk tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy almadi bu ñu ko waxee nag suñu xel day dem ci groupe Futur Média maanaam a ah, groupe Futur Média nag am na TFM L'Obs RFM comme naka du dund gis waaye woon maar noonu la demee bu ñu nee lamb nag defe naa ne ak GFM man ku ne xam na ko ñu ñëwoon fi ay jamono andi woon fi Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène ak yeneen combat ñu toog benn temps gisatuñ leen mu mel ni que nag dañoo fëggaat bunt yi ñëw bi ñu fëggee nag am koo xam ne yéen koy dégg ci ginnaaw caméra yeeg yu mel ni ki noonu muy Mao Cissé tey nag ñu ne moom la ñu teg ca kanam muy coordonnateur bi Leewtoo nag jóg ñëw seet si ko Babacar ci kaddu gi ay Faye mooy bind ngeen xam ko madame Nia yàgg monsieur Béthio Moussine Saliou mooy film Modou Mané mooy dawal Mao maa ngi lay bëgg di la ziar waaw Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp mhm. di nuyu Sénégal yëpp mhm. waaw di ñaan yàlla tamit mas mi jóge fi ñuy jaale ñi nga xam ne ñoom la yàlla jël seen bakkan ñi nga xam ne jox na leen laal tamit ñu leen ñaanal ñu wér ak jàmm ak salaam Mao Cissé defe naa ne sénégalais yàgg nañoo dégg sa tur du nag TFM lañ ko commencé ci li xam depuis 2STV boo ñu doon wax kan mooy Mao Cissé ci lu gàtt rek loo ñuy tënkal oh, dina yéeme de ah <laughs> waaw yéeme googoo tax ñu bëgg internet yi xam tuuti kan mooy Mao Cissé waaw man Mao Cissé benn doom Saalum Saalum la bu juddoo fii Dakar mhm. jàngee Médina école Médine après dem parcelle CM Ogo Diop mu amee BFEM ci laa dem lycée technique Maurice Delafosse jàng fa technique def fa électrice ak mécanique générale mhm. bi ma paree foofu ci laa dem benn école de formation ci place bi mhm. def fa électronique ak euh, téléphonie mhm. ma paree foofu nag sama étude ci laa dem RTS RTS laa njëkkee en nekk fa comme stagiaire ba 2003 bi 2STV ubbee waaye RTS ñoo ma jël yóbbu ma 2STV. ok donc ma commencé fa nekk fa deux mil 2003 ba 2010. 2010 mhm. ba léegi maa ngi Futurs Médias. 2010 ba léegi yaa ngi Futurs Médias. waaw mel ni kon fee nga njëkkee benn at fee nga def fa 7 ans xaw ma mhm. ñëwaat fii. ah muy muy muy muy parcours boo xam ne nii euh, parcours yooyu kon dafay wane ne kon Mao daal yaakaar naa li muy def lu mu jàng la lu mu bëgg la lu mu xam la mais na nga Saloum nga dëkk ban dëkk nga dëkk ci Saloum exactement fan ma jot cosaan ci Saloum waaw man maa ngi dëkk région de Kaffrine fu ñuy wax Nganda Nganda Nganda diggante Nganda Ndiaw ak Louba fa laa dëkk foofu nga dëkk xam nga fa bu baax xam naa fa bu baax war naa fas <laughs> leer naa ngoosi naa. Ah. góob naa jéeri naa. Ah. waaw ah kon am na kon béykat la Saalum Saalum may nuyu sama mbokku Saalum Saalum yi. Ah. mais ci yaakaar naa ne nit ñi dañ la doon dégg nag ak ku mel ni per Bécaye Mbaye kooku sa digganteeg moom loolu loolu loolu ci mën a tënkal. waaw Bécaye moom sunu xarit la sunu nit la. Mhm. dëgg la sunu papa la mais dafa mel ni sunu morom. incha mhm. al dafa dogal bi mu ñëwee dëgg ci fii ñun la fa fekk ñun ay ndaw. Mhm. mais tamit mu wàcce boppam trop. nañu booy yéen ci wàllu télévision ngeen di liggéey. Mhm. donc man mag laa dëgg la mais damay ñëw wax leen sama xalaat ngeen orienté ma nii ma nii ak nii ngay defee mhm. ma ànd ak yéen mhm. donc ci noonu lañ ànd di liggéey ñun ñëpp bu événement amee ñu ñëw toog ñu sottantee xalaat mu ñëw indi xalaatam ñun ñu indi suñuy xalaat ñu dajale donc noonu lañ àndoon di liggéey ba ni ma fay jógee tamit yàlla dogal ba léegi nii chaque année ci weeru koor gi am na bis boo xam ne këram la ñuy dogal ñun ñëpp yéen ñëpp waaw ba yàlla dogal ñu nekkoon Futurs Médias tamit doon liggéeyandu mhm. ba léegi nii bi ñu mujjee gisante yàggul moo tax sax une semaine yàggul waaw mu nekkoon fii ba léegi yàgg tamit mu jógewaat fii bi mu ñëwaatee fii ci yow loolu loo sentir koo nekkaloon mu neex nga xëy gisaat ku ngeen bokk même patron mu xëy jógewaat fii non man ak moom mosul changé hmm. mosul changé hmm. parce que dañ dem ba du mbiru collègue wala wala kii parce que mbiru papa ak doom la mbiru mag ak rakk la hmm. xam ki jug ñëw jël doomam ñëw ne la maa ngi la ko dénk parce que bi Pa Modou di ñëw 2STV sama loxo la ko teg. ok ne ma dénk naa la ko. Mhm. kon loolu seex ngeen leneen loolu loolu. dëgg la Modou Mbaye tamit bi muy ñëw noonu. daal mhm. dogal na même Modou Mbaye chaque jour bu nekkee ci làmb ji bu amee yenn affaire dama koy woo téléphone. Mhm. defal nii bul def nii defal nee bul def na lépp. parce que colère gi ma am ak papam la moo tax. waaw kon daal Bécaye moo la dénk njabootam ci liggéey boobu noonu. waaw exactement. xam nga loolu dafa fort. dafa fort waaw day dem ba dootu leen boole. relation humaine lay doon. waaw euh, déjà bi affaire Sénégal entertainment bi taxawee bokk na ci ma njëkk a woo téléphone. di ma conseiller. Mhm. di ma wax defal nii defal nii jaaral nii jaaral nii mhm. waaw. am na solo mu mel ni kon Père Bécaye itam borom xol bu nice la macha allah yow itam li nga seede nii mooy looloo rafet pour man ci koo seexal àddina mhm. léegi nag su ma jógee foofu ma ñëw nag carrément dugg si ci groupe bi nga nekk muy fitir Médias. GFM Entertainment gisoon nañ ko ay jamono ñu andi woon Eumeu Sène Balla Gaye comme ni ma ko waxee ñu toog quelque temps def benn arrêt ñu yekk leen ren. début boobu bi ñuy tëgg euh, Balla Gaye ak Eumeu seen boobu yow yaa ngi woon ci biir defe naa de. waaw GFM entertainment moo organisé woon Balla gay de Eumeu Sène. Mhm. man maa nekkoon coordonnateur doon ak doo doo doo parce que en fait boobu kii moo ko jiitu woon Charles Faye. Charles Faye te GFM entertainment ma rappelé mu ngi am ba léegi. ok waaw ah, malgré que dañu am structure bu bees bu tudd Sénégal Entertainment Group. ok bu nekk ci événementiel mais GFM Entertainment mu ngi am ba léegi. Mhm. léegi GFM Entertainment moo tëggoon combat Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène. Mhm. waaw boobu maa woon ci biir. yaa ngi ci biir waaw. léegi arrêt bi lan moo waratoon boobu entertainment taxaw tëggatul làmb. non GFM mu ngi ci biir ba léegi mais GFM Entertainment c'était pas uniquement pour tëgg làmb kese. parce que dafa am yeneen événement yu muy gérer yoo xam ne du làmb rek. Mhm. malgré que nag organiser làmb ci la bokk. Mhm. mais am na yeneen événement yu muy gérer te mu ngi am ba léegi. mu ngi am ba léegi Charles Faye moo ko gérer. moo ko gérer waaw. léegi Sénégal Entertainment bu bees bi bi mu ñëwee léegi. Mhm. Euh, bi kañ lañ ko sos. Sénégal Entertainment Group ñu ngi ko sos ren. ren waaw. mu ngi ko sos ren mu am ay branche yu bëri mais man ci wàll ma féete wàllu làmb ji laa féete daal mais tamit moom du làmb kese daal non non du làmb kese mhm. mais man ci ji laa lañ la jox yow waaw làmb ji ñu la jox yow euh, parce que man dama amoon ci ay xibaar que ni am na beneen promoteur wala ke yeneen promoteur koo xam ne xalaatoon nañ ko pour jiital ko mu tëgg ay làmb mais lépp groupe bi mooy ne ci am par la suite lañ dégg ne maa aussi si léegi lañ teg si kanam est ce que loolu mën nga ko dëggal wala déet loolu nag wóoruma malgré que nag am na ay promoteurs yu bëri yu groupe Futur Média di liggéeyal. Mhm. yooyu moom am na promoteur yu bëri yoo xam ne groupe Futur Média dafay liggéey ak ñoom. Mhm. nekk ak ñoom ak ak ñoom partenariat. Mhm. promoteur bi organisé ñëw indi événement am groupe Futur Média jàppale ko ci communication bi ak ci promotion bi. waaw mais ren moom wóor moo wax. wóorul daal waaw. yow kon euh, bi ñu xëy xëy teg la ci kaw. ne la kaay yaa koy jiite. loolu lu mu def si yow. du dañuy xëy xëy teg ma si kaw ne ma kaay yaa koy jiite parce que ñun équipe lañ. équipe lañ. peut-être que man la ñuy gis wala kii. Hmm. mais équipe lañ boo xam ne ku ci nekk dafa am looy loo loo yor ku fa ku ci nekk dafa am looy jiite. Hmm. peut-être que man la ñuy gis mais du man kase. c'est toute une équipe derrière. Hmm. waaw. ok tout équipe la daal mais jox biñ la ko jox. pour nga war ko doxal parce que bu ñu nee coordinateur yow yaay gérer lu bare bare bare wala boog yaa koy sax doxal. mën nañ ne ak équipe bi nga àndal mais yow yaay ne ci kanam. loolu diis na ci yow wala. boo ne diis day mel ni attanoo ko wala dafa am pression bu tegu sa kaw wala leneen. Mhm. parce que li ngay def bu fekkee passion la ci yow. Mhm. boo koy def ak mbégte nga koy defee. Mhm. boo koy def dafay dafay dafay neex si yow. ba diis bi mu waroon diis wala métti bi mu waroon métti pour yow doo ko yëg. waaw parce que bu fekkee yàlla dafa dogal nga bëgg làmb. nekk ci làmb. di ci évoluer. peut-être que nekk ci woon pour organiser mais yaa ngi ci woon ci yeneen fànn. comme passion loo bëggoon quoi. waaw parce non seulement passion loo bëggoon mais ba pare mu nekkoon tamit sama liggéey parce que lu may nekk 2S maa doon réaliser combat en direct yi fa daan am yëpp. donc daan xëy fajar di dem kër mbër yi. Mhm. di leen dem entraînement. Mhm. di dugg ci mbër yi di dugg ci làmb yi dugg ci promoteur yi ba miin ba miin leen ba xam leen. Mhm. donc yow boo ñëwee pour mbir organisation. day mel ni yow ci sa famille rek nga nekkaat ba léegi. waaw li nga bëgg daal si nga nekkaat. daal exactement di ci liggéey. waaw bi taxaw na ñu dégg leen ci ay combat ba yàlla def. yëpp ngeen xëy xëy taxawal ay combat combat yi ngeen taxawal mën nga ci dikkaat. waaw guy gi rëg-rëg lañ taxawal. waaw toftal ci Alaaji Mbay ak euh, Këccëg Boucher. guy gi rëg-rëg dinaa ci taxaw parce que ba dafa bëri woon problème. Mhm. bëri woon coow rëg-rëg moom dafa mel ni teeloon naan nangu mais seen diggante guy gi. Mhm. coow li ci am ak fi mu mujjee euh, lan la bañ na sax Malick Gakou mu mujjee jël xaalisam mot li koog yooyu. Mhm. loolu yow loo si mën a leeral Sénégalais yi fii ci Leewtoo TV. coow li kañ laa waaw parce que coow li tamit lu coow li bëri bëri bëri bëri. Mhm. man sama interlocuteur nas la woon. nas nga doon waxal. ah te nas musuñu réeroo ci kàddu. Mhm. sama diggante man ak moom. Mhm. à chaque fois lu coow lu bëri bari lu wax ji bëri bëri. man maa ngi doon jokkoo ak nas. maa ngi doon wax ak nas. di wax ak moom moom tamit mu sàmm li li ma wax ak moom man tamit ma sàmm li ñu wax man ak moom. ba yàlla dogal dimbali ñu combat bi taxaw. waaw. léegi côté xaalis bi ñu wax ne gàkku da ko cee yokk pour guy gi mën a jël ko kase bi parce que li ngeen ko fayoon dafa bëri 20 millions ngeen ko fayoon mu bañ mais xam nga tey Alaaji Malick Gàkku am na relation ak guy gi relation boo xam ne ñoom ñaar peut-être que euh, séq nañ lu raw loolu parce que gàkku bi mu déggee dafa am coow wala leneen woo na nas nas woo na ma man mi wax ak yow Alaaji Malick Gàkku woo na laaj ma mhm. ma ne ko combat bi ñu ngi négocier man ak nas fii ak fii lañ toll mun waa baax na dinaa leen woo après moom mu woo ñoom nas waxtaan ak ñoom conseil leen après par la suite ci la ma nas woo mm-hmm. waaw ñu la wax na ak gàkku waaw mu ne ma wax na ak gàkku mais xaalisu gàkku mm-hmm. dugg na ci wala dugg ci ñoo xamuñ ñun contrat lañ am ak guy gi ah. waxaale ak moom ba jubu ak moom ci prix mm. ñu ne ko temps lañ koy lañ lay fay mu nangu ñu ñëw signé ak moom jox ko avance mais comme ni ma wax xaalis Malick Gakou bu duggee peut-être ci côté ñoom guy gi parce que séq na séq na loolu ak ñoom. mais dox na ci tànku jéego moom woote na parce que ci diggante bi am na benn ñagas-ñagas bu xawoon am mal malentendu bu amoon ci diggante Lamine Samba ak guy gi. waaw dox na si ba ñoom ñaar ñu juboo macha allah. après nag ci la woote mu ne mu ne pour moom combat bi dafa amoon coow lu rëy. Mhm. problème bu rëy. mu mhm. ne ko non non ñun amuñu amuñu benn problème parce que ñu ngi wax ba léegi peut-être nag. Lamine Samba liggéeyam la doon def. Mhm. guy gi tamit di défendre intérêt mhm. moo tax ñoom ñaar ñu xawoon ñàkk réeroo ci ay kaddu. ci ay kaddu waaw mu intervenir jubóole leen. waaw ñu ciy profité di nuyu suñu grand Lamine Samba. moom mhm. tamit ah koy béggee. di nuyu ki nga xam ne moom mooy Madoune Diouf nekk fii si kër gi di suñu xarit ak Baye Niass. borom record ak Abou Ndour ñoom ñëpp defe fii lañ nekk ci groupe bi. ñu leen di ñaanal jàmm suñu ay confrères lañ di ay gars yu baax. léegi mais xaalisu gàkku daal kon yow moom bu duggee itam yow daal waxee su la ci dara yow loo ci xam xamoo ci dara dara dara pas xaw ma si dara mais xam nga instant bi ñu kon dugal na. ñun Sénégal Entertainment Group. Ah. ñun lu ñu séq ak guy gi. waaw ah. mooy signer un contrat. Ah. boo xam ne dañ naan ko ñun temps lañ lay fay. Mm-hmm. moom mu d'accord loolu. Mm-hmm. mu signé ñun ñu signé. Mm-hmm. ñu yëkkati avance jox ko. mu déchargé ñun ñu jël décharge bi téye. donc loolu la ñu séq ñun ak guy gi. léegi Malick Gakou moom. ci mbaaxam. ak bëgg defaram. moom moo woo waa kaw guy gi. waxtaan ak ñoom léegi loolu nag li mu woo waxtaan ak ñoom ñoom ñooñu lay concerné. yow xamoo ci dara daal. non mais même bu ma xamee tamit en fait jàpp ma ne war naa taxaw fii di ko wax. kon weccet dugg na kon kay daa mel ni gars yi wax. parce que ñoom ñoom lay concerné ñoom. <laughs> mais gàkku dugal na xaalis moom kon daal daa mel ni gars yi wax. daa su ma la waxee gàkku dugal na xaalis nag wax naa lu ma wóorul. wax dara leeru la ci waaw leeru leeru ma quoi. kon ñu ñu bàyyi loolu ñu continuer mais léegi bi loolu amee coow li nga wax sànq ci diggante Gouye Gui Samba loolu moom duñ ci dikkaat parce que comme ne ku doon def liggéeyam mhm. mhm. moom mooy sa groupe bi ngay yore tey di ko coordonné mu mel ni bi nga taxawalee loolu dafa am yeneen combat yi doon doxaat waaw comme ban ban bëri na trop limal ma si ñaar wala ñetti combat maa ngi doon maa ngi doon dox Balla Gaye de Gris yaa ngi ko doon dox. waaw maa ngi doon dox Sa Thiès Reug Reug laa njëkk a commencé dox sax. ok avant Sa Thiès guy gi. boobu nga njëkkoon bëgg. moom laa njëkkoon dox lu la ko xañ. non parce que bi ma woowee Sa moom il préfère bañ a bëri ak Reug Reug bi. Mhm, bëgg woon ko daal. ma nangul ko ko. guy gi giri lu. Euh, am na si droit. Balla giri lu la ko xañ. Balla giri dara xañu ma ko. parce que dama waxtaan ak ñoom am ñeneen ñu ci nekk tamit donc bi ñëw ñu d'accord ak moom après man ma arrêté. kon xanaa problème mu la non du problème prix parce que jotuñu woon sori trop. benn rencontre xaw ma ñaar rencontre lañ jot am. ci ñaar yooyu rek nga yemoon quoi. waaw ak yeneen wala amoon na yeneen combat yu ci tëfluwaatoon yoo doon dox. yeneen combat waaw maa ngi dox euh, Eumeu Sène contacté naa Eumeu Sène ak Guy gi. après ma contacté woon Eumeu Sène ak Bombardier. ok waaw nangu woon nañu bëri quoi Eumeu Sène nangu woon na bëri ak Guy gi. Mm, contacté naa Eumeu Sène ak waaw nangoon na bëre guy gi. Mhm. nangoon na bëre bombardier tamit. Mhm. waaw moom nangoon na bëre ñoom ñaar ñëpp. nangoon na waaw mais xëy na a leen tàqale wala ñoom. non non du xaalis moo ñu tàqale de. Mhm. dégg li ma wax dama leen contacté ñoom ñu ne ma dinañ ma revenir mais xam nga tey ci diggante bi. bu fekkee ne benn promoteur dugg na ba jubóo na ak ñoom après yow. doo doo mën a ñëw quoi doo si continuer waat. mais par la suite ay combat taxaw comme ni ñu ko waxee. Mhm. Gris jël Balla Gaye. Mhm. Boy Niang ak kële bëree am combat ak Tapha mhm. ñu dégg tamit ci ay xiyaatkan yi. Euh, sa groupe bi nga jiite ñu ngi ci suuf di def ay galgal pour jéem a sax kii combat yooyu yow loolu dëgg la wala nu mu demee noonu. non man instant bi xam nga. affaire yi dañu toll ci période boo xam ne période ficelé combat la ñu toll woon. Mhm. actuellement ficelé nañ guy gi ak rëg rëg mhm. donc comme ficelé nañ guy gi rëg rëg ñu moment bi dañu concentré wu ci def campagne guy gi ak rëg rëg ci campagne boobu ngeen toll. waaw ci loolu lañ toll fi ne nii. Ah, li li coow li am ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye bu ñu tudd leen ci yéen waa groupe Futurs Médias nag. bon ni nga ko déggee laa ko déggee ah. yow mi waaw ni nga ko déggee laa ko déggee. diggante bi boobu ba tey waxoo fekk Gris waxoo fekk Balla Gaye. wax nañ. mais waxuñ ci waxu combat. ah boo waxeek ñoom looy wax war a ak ñoom budul combat wala. waxu émission de lañ doon wax. pour nga war leen jëlee émission. waaw ah, lu tax per Gass mel ni dafa mel ni ku kii ci ku dangeen a mel ni lu bëgg euh, gor ay affaire am wala. ah bon moom bu ko waxee peut-être mën naa moo mu am ay raison am. waaw mais yéen ah. daal ngeen ci dara. xam nga Gaston suñu la moom. waaw moom mi koy di ko jaar di ko waaw moom mën na am moom ay raison ah moom day daa mel ni ba ah day bañ ko dugg ci toolam xam naa ñaay eh, ay mbayam rek xam naa moo tax mu teel a yëglu. waaw mais instant bi ñu moom ñu ngi ci guy gi ak Reug Reug. mais li jënd beneen combat moom la ñëpp di wax moom la ñëpp di coow. Mhm. donc moment bi ci loolu lañ nekk pour gérer campagne boobu. mais mbëri dafa am ñu ci jël ñoo xam ne siwaloon nañ seen combat après par la suite ñëwaat maa aussi c'est di waxaat ak moom. comme ci combat yi taxaw. moo xam Giri Balla la moo xam Boy Niang Tapha la moo xam Ama Baldé Modou Lô la. non non. kenn ci ñoom woowu la. pour waxaat ak yow ci wàllum làmb pour affaire ñu siiwal seen i combat bañ na taxaw na ba pare laa wax quoi am na ñëpp seen i combat siiw na. non non man ñi nga xam ne dama déggante ñoom man maa jël sama téléphone woo leen. Mhm. te bi ma leen di woo c'était pour ay tournage émission. tournage émission rek nga leen waaw wax dëgg yàlla te tam nga ci woo woo ma sax Balla Gaye Aziz Ndiaye laa woo. Aziz nga woo waaw. Boy ko woo Aziz laa te Aziz gis dégg ngeen li mu wax donc jarul nit ñi si waxaat. waaw exactement donc Aziz Ndiaye laa woo pour affaire émission. Mhm. pare Gris Bordeaux dama ko woo pour émission. cause ah. waaw ok mu mel ni kon loolu leer na nañ mhm. léegi nag bu ñu ñëwee taxawoon fisale nga combat ci campagne bi mhm. euh, nga nar a jublu mhm. campagne boobu ci ci ban façon ci ban fànn waaw actuellement ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi xool nan la ñuy def pour dérouler campagne bi peut-être mënuloo dévoiler dévoiler lu bëri mais fii fan yu ndaw incha allah dinañ gis affaire yi commencé bu soobee yàlla waaw parce que ah. parce que tamit ci période mbas lañ nekk CNG ubbeegul te régulariser guñu combat bi amaguñu date

ñi nga xam ne ñoo ficelé ñoo régularisé woon te jotaguñu bëri ñoo njëkk a bëri. bien bu ñu paree ñun ñu ficelé bees ñu ñu ñu ñu tëgg. Mhm. mais am na mbër yoo xam ne ñaan ñu yàlla bëri benn combat ci saison bi. ok mais comme dañoo nekk sous contrat. Mhm. da leen bàyyi ba seen contrat jeex. Mhm. nga waxtaan ak ñoom. yow kay nga tëgg benn combat muy guy gi ak rëg-rëg ñu bëri ñu bëri dañ leen di laaj ñu naan guy gi rëg-rëg ko man du ñu benn cent pour cent yow mi tëgg combat bi gis-gis boo am booy dégg loolu ban gis-gis nga ciy am. non xam nga instant bi bu ñu tëggee làmb kii danaan kii moom man kii danaan kii moo mën toujours làmb moom c'est toujours comme ça mais ñoom ñaar ay adversaire lañ nangu nañu bëri donc résultat bi moom bu arbitre sifflé la sifflé mais yow sa xam-xam yow que ñoom ñëpp ci combat ba grand combat ah loolu moom dëgg la voilà kon xam nga leen bu baax xam naa leen bu baax est-ce que favori yu bëri yu ëpp yooyu est-ce que li ñu jox Reug Reug ci ay est-ce pour wax loolu dama lay laaj en tant que amateur u làmb. non actuellement man man man man mal placé pour wax loolu. Ah. parce que tey boo organisé dafa am nen noo xam ne moom nga war a taxawee. ok vraiment même boo amee sa analyse da koy jàpp pour yow. pour yow quoi parce que tamit par respect pour lutteurs yi nga xam ne ñoom nga organisé tamit. Mhm. waaw moo tax. Mhm. tey tamit yaa ngi dégg coow li ci làmb ji fan yi mhm. président Alioune Sarr bu ñu dafa war a mën a dem ci mois de octobre bi. ki koy remplacer coow yi bëri na yow yàgg nga ci lamb parce que suma ma li nga wax depuis RTS ba tey fii macha allah yàlla na gën a yokku muy at yu bëri macha allah euh, yow Mao Cissé en tant que connaisseur loo wax ci tey ki war a remplacer président Alioune Sarr bu fekkente ne dem na xam nga loolu du décision wu nit ñi wala décision wu population loolu état mooy nommé peut bu doon élection di nga wax man lii ak lii ak lii wala leneen loo xam ne état moo koy jël dénkaane ko et que tey nit ñi wax naan nañ dem ci fédération wala ñu ne nañu changer CNG wala leneen mais loolu je pense que peut-être nit ñi ku ci nekk am nga droit wax ci am nga xalaat mais décision bi décision état la. décision état la exactement mais yow en tant que sénégalais loolu état xam nga état mooy sénégalais mooy république bi mooy mhm. ñun population bi mhm. mais yow defe naa ne am nga droit ne kat personne bii moom a gën même boo tuddul tur nga ne ku mel ci loolu moom damay wax li Pape Abdou Fall wax rek ma koy nuyu au passage. Mm-hmm. muy waaw muy dañoo soxla nit ñu crédible. ok parce que actuellement làmb soxla na ay nit ñu crédible soxla na ay borom xalaat soxla na tamit ay liggéeykat pour yeggali liggéey bi fi docteur Alioune Sarr jot a def parce que yombul na. Mm-hmm. yombul de. liggéey bi fi jot a def yombul pour yeggali vraiment yombul. Mm-hmm. man suivre naa ko lu bare bare bare bare ci affaire. mais yombul. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. am na solo tey koo xam ne dañ la doon dégg ci ginnaaw. ci caméra yeeg yooyu. ñu xëy a gis la nga ne ci kanam. non nekkuma ci kanam. ah non parce que yaa ngi nii toog en face ak caméra yi. waaw ba pare bi ñu daan dégg Maaw Cissé rek lañu daan dégg Père Bekaay di wax. waaw koy déggaat gars yi suñu mhm. ñu gis la devant les caméras. Mhm. kon Maaw yow mais cër nga tey su ma ñëwee ci làmb su ma duggee. waaw ci làmb ñu nekk ci làmb yëpp xam nañ ma xam naa leen. mais am na ñoo xam ne ñu ngi suivre am na ñoo xam ne tey lañ lay doog a teg bët nii à travers micro Leewtoo euh, caméra Leewtoo bii lañ lay doog a gis te dañ daan dégg maaw mhm. ay at ñu ngi lay dégg mhm. parce que li nga génn bëriwul mhm. tey nag da ngay génn par force parce que yaa ne ca kanam waaw sant yàlla liggéey la rek parce que peut-être xam nga tey mënoo nekk di réaliser combat ba pare ñëw taxaw si kanamu caméra yi waaw c'est pas possible waaw donc ci ginnaaw ngay nekk jàpp ci affaire yi di liggéey et mais tey bu yàlla bi dafa laaj communication dafa laaj génn. voilà da ngay génn. communiquer li nga war a communiquer def li nga war a def liggéey la rek ah liggéey laa ko jàppee. te te mu mel ni ma mel moom da dari maanaam dajale nga ci e, e, expérience yu bari daal. waaw jàng naa lu bari nag. Mhm. jàng naa lu bare bare bare bari may gërëm fi ma jaar yëpp. Mhm. depuis RTS Mamadou baal Boubacar Ba Feu Djibril Wade Cheikh na Cheikh Sadbou. Badara Ndiir ñooñu ak Feu Alé Seck ñooñu am naa chance man côtoyé la ñoom ñëpp. di gërëm El Hadj Ndiaye 2 bu baax su waxuma mbirul liggéey mais ci àdduna sax jàng naa fa lu bëree bëree bëri. Mm-hmm. parce que mën naa ne foofu laa jàngee àdduna. jàng naa fa lu bëri. jàng dëgg yàlla waaw. am na solo. Mm-hmm. am na mbër. man am mbër comment supporter mbër. waaw non am naa am naa ay xarit nag mais aw ma mbër moom. ko doon supporter avant ngay nekk ci tele ak rajo yi ak ci kii ci. man bi may jàng Tyson laa doon supporter. kon mais benn xaw ma ñaari combat laa ko doon supporter. waaw. Ah. mais à part boobu amatoo mbër. moom amaat muy ba avant muy bàyyi làmb amatuma maaw am na soxna defe naan de. waaw ah, am naa soxna waaw ñaata. waaw ah, am naa ñaari soxna. ñaar waaw. <laughs> yàgg maar. yàgg maaw ko mag maaw ne am na ñaar de. <laughs> sama waa ji doo ko ñaanal. ah ndax mu am ah, kenn sax moom sama ah, caméraman garaawul nañ ko ñaanal rek ah? incha allah yàlla na ko may ku baax Cissé nga sant de te yàlla na ko may ku baax incha allah bu soobee yàlla <laughs> waaw incha allah rabbi ak sa xarit bële xaw ma la xaw ma sax sa séeri ay sa fay madame a mhm. ma dañuy jàng rek <laughs> waaw bi ñun ñoo ko bokk peut ku ci nekk day jàng ci moroomam dëgg la waaw man mën naa jàng ci yow kii ñëw jàng ci moom kii ñëw jàng ci kër am na solo waaw muy nuyu sama xarit Asi madame mhm. Cissé bien sûr maa ngi nuyu sama njaboot gi yëpp macha <laughs> allah di nuyu tamit aaw buru këram waaw ak ñaareel xaritu jëkkëram noonu lay demee ah mhm. Mhm. soo amoon looy looy tàggatoo tey looy wax comme message booy mujj wax sénégalais yi waaw di sant yàlla rek di wax ne jàmm ci la lépp xaj te tey làmb ñun ñun ñëpp ci nekk ci wàll bi nga nekk boo jàppee jàpp ne man su ma jàppee def nii mu baax rek mhm. bu ko ku nekk defee mun na am affaire yu jëm ci kanam mën na jëm ci kanam parce que tamit tey risque mënul gën a rëy ci période bi ñu tekk bi ñu nekk nii mhm. ñu nekk ci période mbas mhm. économie bi daanu promoteur am yaakaar jël xaalisam jox ko mbër avance ba pare toog di xaar dundee yàlla lu metti la ñun ñëpp ku ci nekk na ku nekk jéem a comprendre sa morom ñu am xalaat bu positif ñaan yàlla saison bi ubbi ak jàmm ñu commencé waat làmb yi comme ni mu demee woon incha allahu rabbi ñëpp am jàmm jaajëf yàgg maara ah. di gërëm waa Leewtoo bu baax nag dëgg la waaw di la gërëm yow Babacar waaw ak allah waaw mbaxana bi <laughs> sama cameraman bi moom ma solal tey yàgg maar maa ngi ko ciy bëgg parce que ñëpp a may laaj mbaxana mi mhm. di ko nuyuwaat encore une fois di ko ñaanal jàmm rek di la nuyu tamit ci disponibilité bi xam nga di la ñaanal yàlla loolu ñu la jox yàlla na nga ko réussir à 100 pour cent parce que nit ku Aïssa Faye madame Niang Modou Mané ak fu ñu waay di suivre rek di la ñaanal jàmm mais suñu soppe yi ne ci kër gi di suñu ay confrères waxoon naa ko sànq Lamine Samba Modou Baye Niass ñoom ñëpp Abou maa ngi leen di ñaanal jàmm waaw ah, Medoune moom sama ñoo nekk ndoo 2 ñoo jógee ndoo 2 ñoo ñëw ndoo TFM moom vraiment maa ngi koy bégee bu baax a baax di ñaanal groupe Futurs Médias yëpp jàmm jaajëf